dal leen ak jàmm mbokku internet yi seen football TV nuyu naa leen bu baax a baax jeex leen xam naa ne information euh, laa leen jox si stade bi gis naa question yu bëri quand même si seen i commentaire stade bi fu mu toll Mohamed stade bi gis ngeen euh, boo leen duggee TikTok boo leen duggee Instagram Twitter wala sax Facebook di yu bëri ay photo yu bëri xamante ne moom génn dèjà que rek Turquie yi di liggéey foofu dañuy caméra sénégalais yi fay nekk dañuy caméra donc yaa bëri na ay photo yu xamante ne euh, gis nañ ko mais li ma gën a amal solo si vidéo bi de mooy ñaar benn bi gis nañ ne euh, douzième gaynde lañ defaragul mooy ay six seize jours rouge la xam douzième gaynde dama xamul na stade bi yëpp ah, en euh, seize jours rouge lañ koy def ou bien vingt jours rouge lañ en tout cas commentaire wax leen seen xaar ak seen gis-gis pour l' instant daal rouge bi lañ gis ak euh, douzième bi maanaam douzième gaynde leneen loo xamante ne mën nañ ko wax mooy euh, stade bu ndaw boobu ñu def à côté bu stade sax terrain plutôt la koy tuddee mu am 2000 places loolu gis nañ tamit liggéey bi avancé na ci côté boobu bu baax a baax man tey jii ba mu posé woon question ngeen ne ma stade bi lan moo des dama naan euh, gazon bi xam nga gazon bi xamante ne euh, gazon hybride la doon maanaam gazon artificiel ñu boole gazon naturel je pense que foofu la liggéey bi gën a nekk actuellement bu ñu jógee si si tribune yi quand même defar nañ lu bëri musée bi war nañ ko defar loolu ci la bokk mais concernant tout ce que Euh, courant beeg yooyu man jàpp ma ne dina am problème quoi loolu jàpp naa ne voilà comme que février la ñu wax ne euh, lañ ko war a mën a livrer maanaam 22 février 2022 moom lañ koy inauguré euh, ñoom ñuy wax match yi mais nax instant boobu na am dëkk fa est ce jël booy yi nekk fii Sénégal maanaam équipe locale bi wala yu demee noonu en tout cas daal bëgg nañu fa jouer mois de mars te jàpp nañ ne war nañ ko mën a jouer xam nga fédération wax nañ ne war nañ mois de mars. wax nañ ko si plateau télé yi nekk fii ci réew mi donc euh, stade daal li mu si mën wax mooy que avancé na bu baax a baax a baax a baax bés bu ñu ko temps mais ak lépp ak accord surtout ak ñoom comme que am nañu accord ba ñoom ñoom ñoo si des Mouhamed bu defoon foofu reportage rek si waa si waa ñi yor wàllum stade bi la xam parce que signé naa def naa li war a def yëpp ñooñu rek ñoo si des pour jox ma seen ñëw def lépp quoi ma def tournage bi mbokk yi li mu nekkoon vidéo bi. ci commentaire yi wax leen seen xaar ak seen gis-gis di leen wax ne sponsor bi moom disponible ba tey ah muy euh, Lacoste yi yéen a ngi jënd yéen a ngi soutenir seen bi bu baax a à 8000 francs au 77 196 05 wala ndox plaisir bi nga xamante ne moo ngi taxawu seen football TV nekk sponsoram am xam donc voilà fii ci réew mi la nekk pour ñi am événement ay mariage njëndëg yu demee noonu mun ngeen dem tamit si Auchan yi wala ngeen dem si station yi di ngeen am ndox plaisir mbokk yi li mu nekkoon vidéo bi ma leen di jaajëfal di leen wax ba beneen sur seen football TV